mars bi ñu naan euh, Ousmane Sonko génne nañ ko ci fichier bi nañ naan dugalaat nañ ko ñi naan génnee nañ ko finalement sukkandikuwul ci loolu mais ci affaire Mame Mbaye Niang bi la ñu sukkandiku bettu la yow. no bettu ma parce que dossier Adji Sarr man xamoon naa ne du éliminer Ousmane. mënu ko éliminer ci ñaar. Hmm. benn bi baatin la. Hmm? waaw dossier boobu Sonko lim ci waxoon moo ci am dossier bi duma ma tëj kaso tëju ko kaso. Hmm. boo fàttalikoo bi muy janoog ñoom Moustapha Diop ne na leen dossier bi du ma tëj kaso mm-hmm. tëju ko kaso mm-hmm. dossier bi terew ko nekk candidat dossier boobu dossier yu Ousmane la daf ko jekku mm-hmm. pertu ci dara lépp mun nga ne moo ko propulsé dossier Mame Mbaye Niang par contre moo ko jigut dossier boobu jigut te bu ñu xeeboon la nag mm. mais jigu ko boo xoolee lu bëri sax ci stratégie Pastef ci seen dispositif dossier mm. boobu jigul Pastef. c'est-à-dire xaaruñu ko woon tamit ah. non même xaaruñu ko. xaaruñu ko woon jig ak benn xaaruñu ko woon waa xaaruñu ko dafa ñëw ñu focus woon ci benn affaire fii. ñu focus ci benn affaire ñu jékki-jékki rek. que affaire de mais jigul Pastef quand même. Mm. ci jàpp boo xoolee ñi ñu jàpp Pastef yëpp dossier boobu lañ leen jàpp. si moo tax may la xaaruñu ko woon. jigul leen dossier boobu buñ ci condamné Ousmane bu dee yaa ngi jàngat mbirum Ousmane ci baatin du la bett. Mhm. waaye ñaaw na fi démocratie toll ci àddina. ñu ne mhm. un opposant pas n'importe laquelle le chef de l'opposition aay nañ ko bokk à des ndax lan pour un dossier de diffamation kan la diffamer un ministre de la république. Mhm. ci lan gestion des deniers publics. loolu une tache du la. sur l'histoire de la république du Sénégal ñaaw na trop sëriñ bi. dans une démocratie bu amul la débat. Mhm. lan la ñuy waxtaanee. démocratie bu amul. est ce que war nañ est ce que loolu est ce que conseil bi war na mën a sukkandiku ci loolu tamit pour pour génne ci. Ousmane Sonko sama xel oyof na trop vraiment te dossier boobu euh, équivoque yi dafa bëri. Mhm. ñii nee nañ six mois et plus mais Doudou Ndoye du novice en droit. génn na na la plus de six mois mooy six mois bu tegee benn jour. Mhm. dossier Mame Mbaye Niang six mois la. est-ce que six mois war na éliminer Sonko procédure de rajation bi li ci met ma soxna kan yooyu yëpp indi donc dossier boobu moom jigul Sonko de. Mm-hmm. waaye ñaaw waaye tâche d'huile la ci état bu Sénégal. bu dee mbubb gu weex tàll dossier boobu moom. tàccal na ko waaw na ko trop. Mhm. d' accord cette élimination de Ousmane Sonko tey lan la mën a changer ci euh, euh, maanaam situation bi ñu nekk nii en pré pré pré campagne nga xamante ni daanaka ay fan rek moom moo ci des pour candidats yi tey war a mën a génn jàkkaarloo ak askan bi wax leen seen pro seen programme maanaam daagaan seen seen seen baat ana tey lan la élimination Ousmane sonk bi mën a changer. ci ci ci landerneau politique bi surtout jamono ji en tout cas ça ne profite pas au camp du pouvoir ah bon waaw le pourquoi mooy ni ko éliminer dafa jur mooy li ma la wax benn capital de sympathie ak benn colère benn ras-le-bol des sénégalais mmh. un peuple très émotif hmm. vote émotif boobu boo ko dajalee nga éliminer Ousmane Sonko un homme hmm. boo xam ne il a un discours il a un programme am ñu ci d'accord am ñu ci d'accord nga bàyyi ko mu dem comme ni ko Xaadim Bamba di waxee moo gën ci yow mii xëccoo Mhm. mën naa wax convaincre Mahfous mën naa wax ba na convaincre Cheikh Ousmane Touré. si. du waaye ouais. boo éliminer Ousmane indi Diomaye indi nga koo xam ni dañ koy voteel ngir beaucoup de mhm. première bi mooy dañuy régler mooy dañuy fayul Ousmane. Mhm. bi mooy dañ lay wan na la du yow yaa leen di imposer candidat. muy mm -hmm. sénégalais na la ñun du yow yow yaa ñuy tànnal candidat yaa ngi bi. dañuy vote maanaam voté tuñu hmm. choix. wu profil. dañuy voté pour soit continuité wala rupture foofu nga dugal affaire bi donc stratégiquement arrangé wu la. Hmm. mooy benn. Hmm. léegi nag ni mu waroon demee demee ko. mooy état bi ñoom parti au pouvoir bi ñoom li ñu foogoon mooy Ousmane du tànn candidat dafay rester sur sa personne. wala mu désigner sax. maanaam le candidat du camp du pouvoir mm-hmm. en l'occurrence Amadou Ba boo xoolee lien yi mu amoon na ko Ousmane daan le passé mais demeewul noonu Ousmane siy débrouillé ba am candidat bi mu bëgg mm-hmm. boo xam ne presque mooma mm-hmm. léegi nag bi ñu ko éliminé dafa rabattraat carte yi Amadou Ba lim espéré lu bëri mooy électorat wu Ousmane rëcc na ko dégg nga ses principal défenseur ku mel ni Birima Ndiaye génn doon def clin d'œil électorat wu Ousmane pour kan la Ousmane di jàppale. Mhm. ci élection yi boobu rëcc na. Mhm. Khalifa Ababacar Sall li tax mu ne la woon naa bokk rek. Mhm. xamoon na ni Ousmane par A ou B ils feront tout leur possible pour éliminer ko. suñ ko éliminer ñu bëri tamit ci ñoom leen jàppoon mooy comme li mu ñu bëri jàppoon ku bokk Pastef du bokk. Ousmane du am candidat. finalement Khalifa bu génnee ak la candidat du pouvoir ah Ousmane entre xalifa ak la candidat du pouvoir ils seront obligés. par devoir. d'un opposant mm-hmm. ci votel Khalifa Ababacar Sall moo tax nga doon dégg kenn ci ay ñooñam naan la n'insultez pas l'avenir mm-hmm. xamoo leen ëllëg ni muy demee parce que ñoom liñ gëmoon mooy dañuy daje jeeg passé par force boobu off na mm-hmm. ñu bëri ñu positionné woon yaakaar ne électorat Pastef day wàcc ñoom perte nag ko gi dafay rebattre waat mooy xam nga tey opposition bi xam nga lan la te élection yi ñaari pôle principal la koy xëccoo le candidat de Macky Sall du pouvoir mooy Macky ñi ma àndal le candidat de Sonko ñooñu mooy ñaari pole principal yi. Mhm. léegi xam nga élection yi xam nga lan la ñuy wëri ji. Mhm. mooy troisième pôle bi le faiseur de roi wala les faiseurs de roi moom la ñuy wër mais ñaari pôle principal yi. xam mhm. nañ ko. candidat pouvoir bi la ak candidat position bi xam nga lan lañ xamagul. kan mooy doon faiseur de roi bi parce que dafay dépendre ci situation bi. mën na nekk PUR. mën na nekk PDS. PDS moom bokkutul. xaaral rek mën na nekk ba tey PDS. Mhm. mooy Karim mu ñëw appareil yi PDS jug ni mu war a jugee. mu am mu jàppale émissé wu. Mhm. mën na nekk faiseur de roi. Mhm. PDS jàppale ji benn candidat mën na nekk kooku mën na nekk faiseur de roi foofu nag la yenn profil yi di amee solo ci élection yi ku mel ni Déthié Fall. Boubacar Camara. Mm-hmm. ñooñu foofu la seen chance di amee ci élection yi mooy xam nga lan. mun na nekk faiseur de roi mooy bu dee ils peuvent ratisser large du côté des libéraux Déthié réew mee ko meññ meñ réew mi PDS ko meññ. PDS mën na sottil Déthié su boobaa mm-hmm. Déthié day nekk faiseur de roi. Mm-hmm. PDS mun na sottil Boubacar Camara su boobaa Boubacar Camara day nekk faiseur de roi bu loolu amut. pur mooy taxaw taxawaayu faiseur de roi. Mhm. te pur am nañu électorat boo xam ne si ni bu fideloo on. fidèle oui. te ñii ma la limal. Pastef lañ gën a jege ka camp du pouvoir moo tax ma la élection de roi bi la ñuy waaye ñaari pôle principal yi xam nañ ko. mooy mooy mooy mooy mooy ki ki ki Sonko ngemb ak ki Macky ngemb ak mooy affrontement par procuration. waaw. moyen waaye Sonko Sonko. Sonko bi Sonko la ak Macky Sall. mais ku ne da ngaa indi ku ne ku ne da ngaa indi sa mbër léegi nag am na nu muy demee. Mhm. duñ soxla ut troisième pôle. Mhm. mooy élection premier tour lay ne. waaw teel mu daal. Hmm? <laughs> mën na na. mais du mais du yomb de. mën na na. du yomb de maanaam. li ngay rawee du bëri parce que déjà xam nga lu problème mooy dafa mel ne doole yi dañoo tolloo. mën na ne. mën na ne wala suy ne dina seere trop. waaw mooy li ma mën na ne ay cinquante et un virgule. dina seere mais mm-hmm. mën na ne. Mm-hmm. <laughs> mën na ne. ça dépend rek waaw mën na ne. mën na ne de dóor mu daanu mën na ne ci élection yi. Ah, waaw dóor mu daanu mën naa ne kaw kaw <laughs> kaw. ak mën a ne kaw teel mu daanu bu jeex mën na ne. Hmm? ñaari hypothèse yooyu rek am. dóor mu daanu bi. wala troisième voie bi mooy un faiseur de roi wala les faiseurs de roi. dem deuxième round. léegi nag. Mhm. politique lañ ne ratisser large dafa am solo. Mhm. candidat bu ne am nga intérêt ratisser large sur les recalés ak les yeneen candidats yi mais attention da nga dégg ku la ne diw moo ëpp avantage rati ratisser large par rapport ak profilam. Mhm. ci les recalés da nga dégg ku la ne Déthié Fall la gën a mun a ratisser large ci yeneen gars yi mais ñi ngay ratisser lan la ñuy peser attention. Mm-hmm. mën nga am de bon profile leader de parti wala de mouvement mais lan la ñu am ci suuf dara mooy rafet ngemb ñaaw bëri dafa bëri ci candidat wu opposition bi. Mm-hmm. ñoo xam ne dañoo rafet ngemb bu ñu taxawee diw la ancien ministre. Ah, ancien député mais bu ñu bëree moom nga ne acam waaw. waaye bu ngeen bëree rek nga ne acam mhm. dara newu fa mooy rafet ngeen bu ñaaw bëri def cay bëri c'est le bon profile mhm. mais amuñu benn base seen koñ sax buñ ko doon xëccoo ñu gañaleen mhm. donc bu dee mën nga rater sa large tamit mën nga dajale ay xottu vide nag attention mën nga rater say daj ci làmb daj la làmb bañ a daj donc foofu mën na ne mën na bañ a ne candidat bu miise foofu da nga wadd bu fekkee ñoom ku mel ni ca Fall wala Boubacar Camara bu miser trop ci selon sama profil. Mhm. man maa gën a mun a trouver compromis ak les candidats recalés wala yenn candidats yi jóge ci yenn côté yi attention de mun nga am de bon profil mais doo am base bu du solide. Mhm. am na ci ñu am profil am base am na ci ñoo xam ne profil rek la ñu amuñu base élection nag base la sénégalais ñooy voté. Mhm. profil yooyu voté waaw man comme mooy li nga wax fii rek. Ah, mooy man mën na ñëw ak xot bu ah, vide. mën na ñëw ak xott bu vide. mën na ñëw ak lum duy. lu diis tamit. Uh-huh. parce que sénégalais ñooy voté. du profil ñooy voté. Mm-hmm. mais de toute façon élection yi moom benn voix sax dafay cher. Mm-hmm. ni mu bindoo la moo tax. mën nañ jàpp ne tamit dina am élec élection boo xam mën nañu am élection boo xam ne si nii buy ëpp ci wàllum participation le taux de taux de participation euh, mën nañu ko mën nañu ko xaar non bi kenn recours yëpp lay baat taux de participation historique te loolu ça n'arrange pas souvent le camp du pouvoir hmm. waaw taux de participation dañuy wax ni bu élevé rek arrangé wul pouvoir <laughs> dans toutes les fépp nag ci àdduna bi. parce que mooy mooy mooy euh, mooy dafay euh, euh, wane surtout primo vote